faqri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi nga moo fi toogee jataayu Serigne Touba ci kaw suuf suñ borom mu yàgg fi loolu te ànd ak wér kàttanal ko te dëgëral ko ba mu àggale mboolem sumb yi nga xam ne am na ko ci yoon mu yëpp di leen jottali kàddu yu cant yu bàyyi ko ci moom ak i ngërëm ndaa wax ji daanaka sukkurun wa diir rek lay nekk sukkurun wa taqdir kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi nuyu ñëpp di ñu bokkal lislaam bi bàyyiwul kenn rawatina ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi comme ni mu ko waxee woon bi mu wooteel boppu màgg bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm itam ñim seqal réew mi bàyyiwul kenn ndax ñëpp wane nañ seen yéene wane seen taxawaay ci màgg bi kon sëriñ bàyyiwul kenn door a jëm si nag ci ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi mooy njabootu Serigne Touba ñi nga xam ne ba Serigne bi di woo ñoom ñoo ci jiitu ñoom la jëkk woo kuy wuy si rek dangay ñëw ngir ànd ñoom ak dimbali leen waaye sëriñ bi nag ñaan li jiitu ci ak cantam mooy sant yàlla ci boole gu ko Serigne Touba boole ci ak njaboot nee na waxuñu boole ko ci njaboot waaye boole ko ci taalibeem nee na loolu lay sant gën a sant yàlla di sant itam ñim seqal yoon wi ñëpp ci yéene ji am ci moom ak cofeel ji ñu am ci moom nga xam ne kenn ku ci ne moom ñoom ñëpp xam nañ seen yéene ci moom waaye kenn ku ci ne delloo nga ku loolu ba li alxuraan di wax wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun moo ko dal seen digg ñoom kenn ku ci ne lu baax rek moom nga ko gën a yéene si jëmm kon nee na ak ci yéen am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem di sant Serigne Touba itam di sant yàlla suñ borom ci boole gi ñu boole Serigne Touba ndax ak sant yàlla it ci dégg gi ñëpp dégg mbirum Serigne Touba ko wooteem na ma ko junj woon am na ci kàddu yoo xam ne wax na ma naa ko fàttali ndax doomu aadama yàlla du ko bind fàtte ndax am na ñu wax ne al insaan yi sax am na ñu koy firé noonu ndax lim bari fàtte waaye wala xad ahidna ila adama min qablu fa kon loolu moo ñu topp ba nëgëni waaye am ci kàddu yoo xam ne sëriñ bi dama ko waxoon ne naa ko jot li ci eh, waxtaan wi ñu doon def ci cérémonie officielle bu mag bi war suñu doon def fa ansha fa an li ñuy wax fa anshaahu seytaan li zikra rabbihi waaye su yàlla fàttaloo ma ko waaye mu soññaan ma ko ne naa ko fàttaliwaat ci jataay bu mujj bi kon sëriñ bi nee mi ngi sant yàlla ci nit ñi gindiku gi ñu gindiku ci mbirum sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Tuubaa na ko suñu kilifa gu baax nga waxe woon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké woote wut ab tariixa daa fekkoon wu yoon wa rasulullahi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi fekk mu fargay mu bay ko gajj gajj gajj ko ba yoon wa set mu ne yoon waa ku bëgg a dem demal nee na nag woote nitu yàlla lu mu yàgg-yàgg lu muy gën a yàgg suñu boobu di ci gën a gindi nit ñi nee na nag màggal gi weesu loolu bokk na ci lim gën a wane mooy ñëpp ko nañ ci mbirum Serigne Touba ndax ñi nga xam ne askan li wuñ seen bopp bopp ci yoon wi bari nañ ci loolu kenn ku ci ne danga dem ba def ko sa mbirum bopp kon sëriñ bi naan loolu yëg na ko waaye xam na ne ñu ko ci wusu ñëpp istajibu lillahi wa li rasul isa daakum lima yuhyikum moo tax ñu def ko waaye nag nee na yëg na ko yëg na bokk gi ñu ko bokk moom ndax xam nañ fi àdduna toll fi jamono toll waaye loolu tënkatu leen ñëpp kenn ku ci ne danga nga ko def si mbirum bopp def ko sa ndamul bopp loolu la yëg bi ko ba ñi seqal sax àdduna si na ñi nekk Afrique waaw Moursin daaw président ba muy yónneen délégation boole ko teraanga yi bu baaxoo boole lu ma fukki nag ak yam cee boole daa waxoon ne wax ju am solo corona jàppoon ne mën naa dox suñu digg ak yoonu murit waaye na xam ne mënu ko ren ji ba mu yónnee waat loolu wax waaye noonu mu ko defee nag dafa mel ne réew yu bari ci Afrique yàlla déggal na leen ko muy mbirum suñu Tuubaa ndax ku ci ne yaa indi sa bopp ñooñu kenn ñi ci ëpp fu ñu xamee yoonu murit sax dalay jaaxal te ay kilifa yu mag lañ ñii di ay ministère fañ nekk ñii di ay kilifa yu tarixa yu mag ci Afrique yëpp fenn fu ci indi bàyyi ko na fa ñëw kon loolu day wane ne Serigne Touba la mu bëggoon suñu boon defal na ko ndax boo xoolee mbindam yëpp al muminuuna ixwatun wal muminaat lii axawaatu bi kulli xasanaat dem na ba bind àgg ci wax ne li may ñaanal jullit yi gëm yàlla te aju ci man moom laay ñaanal jullit yi yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man loolu ko dem ci mbind mbind yi fepp ko ca kon sëriñ bi yàlla moom li nga yéene rek la lay fay lim yéene woon suñ borom fay def ko ndax boo demee ci nex ju xadaayil xaaj wax ci àq doomu aadama ak ni nga war a jëflante ak nit ñi loolu sëriñ bi bind na ci lu bari ndax am na fu muy wax ne wa kun maa annaasi jamiihan dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka del ànd ak nit ñi si ñi nga bëgg ñu ànd ak yow ba àgg ci wax ne wala xad amurru loolu sa bayit bu yàgg la waaye da ko indiwaat wala xad amurru ala la imi yasubbu nii wa aifu thumma aqulu laa yaani nii kon dem ba àgg ci wax ne bu ma rombee ki may ŋàññi sax ñu ne ma yow lay wax damay wax ne wax ji moomu ko keneen ko tax jug loolu jàpp naa ne fii jamono toll danaa ci dellusiwaat lu mat a gën a bàyyi xel la ci biir bi muy wax àqi doomu aadama dafa wax ne waraaci fi kulli xalqin xaqa man lii tubaab yi di andi tey di wax mag àqi gone àqi jigéen noonu ñu koy tuddee xuququl bi moom àqi mbindeef rek la moom weesu na sax nit ak jinne ak lépp lépp lu yàlla ci mbindeef moo ko waraaci fi kulli kuru suñ borom rek maxluq nga moom kon nee na kenn ku ci ne deel séddi ci mu àq suñ borom ma ko bind kon Serigne Touba suñ borom fayee na ko li mu ko fayee kon nag Serigne bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp. taalibe yi nag moom màggal gi seen bisa ndax ñoom dañ cee la sëriñ Mbacke bu soo waxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doññ suñ duggee suñ borom kon lépp lu ñuy wax dañ ko war a gëm kon taalibe yi. ñoo jaayante si ñun ñun taalibe yi ñoo jaayante suñu digg ak Sëriñ Tuubaa ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon ñun moomatuñ suñu bopp ndax suñu borom kat ba muy jënd ba muy jënd bakkan yi anfusahum wa amwaalahum la waxoon seen bakkan ak seen alal yëmu ci alal ji rek kon moo tax màggal gi dama waxoon ne nit ñi buñ doon ñëw bu ci seen bakkan doon doon dese jaral na leen ko kon loolu fu tënk lu tënk fu wóoru wóor la du du xaarul dara waaye pëseef ak dogg ak ngëm ak ak ngor mooy àgg foofu ndax kenn ku ci ne as bu waxee dee sàmm la mu wax te ku ci ne la la indi ci siñ bi yaa ko wax a soobu te sëñ wóor kenn forcé wut kenn daa jug rek dox jëm ci yoon ñëpp jug topp ko kon nag nañ xam ne képp ku yàlla defal tawfeex ba nga wëstu ko rek war ngaa sant yàlla bu baax rawatina nag bis bii ku ci jëf rek war ngaa sant yàlla danaa ko dellusiwaat bu may jeexal kon sëriñ bi sant nañ ñëpp sant nañ ñim seqal islam bi seqal sant ñim seqal réew mi waaye sant ñim seqal yoon yoonu murit bayu ci kenn di sant nag kuréel gi nga xam ne mooy commité organisation bi nga xam ne ñoo yoroon taxawaayu liggéey màgg gi ni ko suñu bokk yu tedd yi waxee di Serigne Cheikh Mbacke Serigne Mahmoudan ak Cheikh Mahmoud Bachir Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous ndax seen teewaay ak kilifa yi ci des yëpp bu ñu xasee teew rek day yóbbaale lépp ndax Serigne Touba noonu la doxale woon yoon moo tax comité bi du kuréel gi nga xam ne mooy saytu màgget gi bañ koy bañ ci jotee ndigal itam ci Cheikh Mahmoud Layun ñu war kilifa yëpp kenn ku ci ne tànnal ñu nit muy njabootu Serigne Touba bi ak ñi nga xam ne bokki sëriñ bi lañ door wëlbatu ko nag dem ci ñi nga xam ne seexi Serigne Touba lañ kenn ku ci ne Serigne Touba defar defar tofal la ci mbooloo ñu jël seen ñenn ñoom itam ñu wutu ñu jëriñ ñëpp. loolu itam lañ ci jublu rek mooy ni sëriñ bi daa doxale ñoo xam ne yoon wi moom lu mu yàgg yàgg l'islam tajdiid lañ koy def waaye kenn du ko moderniser. inna diinana mabniyun ala naqli laa ala munasabati naqli l'islam kenn du ko moderniser ndax suñ borom mi nga xam ne moo eh, indi diine l'islam def ko muy diine ji def ko waxit ne wa man yabtaxi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu inna diina inda llaahi islaam suñ borom bi def loolu nag moo tax Seydina Aboubacar daa wax ne inna diinana mabniyun ala naqli laa ala munasabati naqli yoon wii di yoonu Serigne Touba itam doxeenu jamono ak bëgg nuroog jamono ak bëgg dab waa jamono waruñoo jéem a soppi suñu doxin ndax lii ñu Serigne Touba tànnal nekk ce ba ñibbisi Touba ñam ko séqaloon ànd ak ñoom liggéey ba nekkoon ci sosoo ko yoon wi ba yoon ak kenn mënta indiwaat lu ko gën a jub kon li ñuy ñaan mooy yàlla nañ suñu borom saxal. ñu bañ ko wàcc da bañ koo génne bañ koo génne loolu mooy taw tawfeex yi cun waaye ni ko sëriñ bi doxale woon kenn mënta indi ba àdduna tukki du ko gën a baax li nga xam ne njabootam gi jëmbatoon nañ ko fii tam ak ñañ ko àndaloon ndax ku ci am ñu ñu ko àndaloon mooy biir yoon wi yëpp nekk wenn say ba yoon wi agsi fi tey loola kat nañ xam ne Sëriñ loolu la ñuy defal mandarga moom ñuy def ba ku ñu gis xàmmee ñu ku seen taalibu Sëriñ Tuubaa mu dox nga xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa ngi ne dox loolu kat nañ xam ne mooy suñ jiglaay mooy suñ kaaraange moom ma moom mii maam sëñ Cheikh Ibrahima Faty bi ko sëriñ bi di yónni ci géej gi loolu ci sëriñ Saliou laa ko déggee bi ko sëriñ bi di yónni ci bureau Ndar ba xam ngeen ne booba jafe na waaye ñoom seenu dogu ak seenu gëm Sëriñ Tuubaa dafa àgg foo xam ne bu leen sëñ bi xasee wax duñ amaat beneen xalaat bi ko sëriñ bi yónnee fekk boobu mbubb mbubb moom soloon taxul mu jamono ndax xam nga ñoom seen dëdd àdduna am ñu ko wax ñu ko wax ne ko nañ la jox garaam mbubb bu rafet nga sol ko ndax mbubb mii kat boo ko solee boo àggee ci tubaab yi duñ jàpp ne ndawul sëñ bi gën a kon nag da ngay sol yére yu méngoo ñoom ba mu lay seeni xam ne ci moom bàyyi bi Ibrahima Fati nanguwul ndax moom dafa xam sëñ bi bi mu dikkee ci siñ bi di tàggoo moom nag ci tàggoo ba bi mu tàggoog sëñ bi ne ko ndax kenn joxul woon yéen yére ngir nga ko mën na ko encay ah, mën na ko lu tax soloo ko mën na ko ndax du sa ndigal mën na ko nag mbubb mii ma la jox mbubb mii nga sol nag tàggat gi ma leen tàggat ci laa ko def mu bàyyi ko mbàkki bari ba agsi Ndar maa ngi fa agsi digg bëccëg xam nga ni ci nett nañ ko ci taarix boobu xaw naa taw te tuuti sax ndax boobu mu ngi ci wax set waaye taw bu loolu yaakaar naa suñ kilifa sax nett nañ mu ga waaye li ci am solo ci loolu may nett ni bi mu agsee ci buntu gouvernance fekk gardien bi mu taxaw mu war koo jàlle mu laaj ko ba xam yaay kan ak foo bàyyi ko foo jóge mun na ko Cheikh Ahmadou Bamba moo yónni ci gouverneur général fi ñuy waxee fekk gouverneur général bi añ na ba def li ñuy wax geste nelaw bëccëg ba noppi jub taxaw ci balko bi séen ko muy wax ak kee muy wax ak Cheikh Ibrahima Fall suuf xamul lu mu doon mu yónni ndaw ne ko demal wàcc kee ma séen de xamoo fu mu jugee waaye xam naa ay caaxaan taxu ko jóg foo ko séen ak colom gii da xam ne ay caaxaan taxu ko jóg kon tàggat gi daal tàmbali kon loolu ñu xam ne bu ñu doxee nu àdduna jéem a soppi ci li ñu li li ñu yàlla beral ndax kuñ ko bokkul la ñeenga yu ci loolu nag kon buñ ko jéem a soppi buñ ko jéem a wëlbati buñ ko jéem a moderne ndax mooy suñ ji te jig nañu Serigne Touba kon kon maa ngi sant bu baax comité organisation bi ci njiital euh, Serigne Ousmane di ko sant bu baax ndax mbooloo mi ni ñu ko tërale li li ne ci kaw mooy majlisu suura bi majlisu suura bi it xam ngeen ne sëriñ bi léeg-léeg dara daana xew ci njariñ moo ma ñi waxtaan ak ñoom buñ ko laajee ne ko ndax lii ci sa borom lu jóge bu leen sëñ bi ne waaw ñu ne kon loolu amuñ ci xalaat jaar na ci ñu bari jaar na ci suñ suñ dam Abdourahmane loolu jaar na ci ñeneen kon loola wa amruhum shura baynahum rasulullahi mi gën ñëpp suñ borom da ko wax na ko del diisoo wa shawirhum fi l amri waaye nag fa iza azamta fa tawakkal ala boo xasee ba dogu nag bu baa bul geesooti wéyee ca diisoo ba moo tax majlis shura bi nekk ci seen ci ka kaw ndax ay kilifa lañ di ay mag yoo xam ne amatuñ jotug ne ci biiru liggéey waaye seen xam-xam ak seen expérience seen xalaat ak liñ doon ci yoon wi waxtu ne loolu sëñ Basiru dana ko faral di wax la maamu te di waxoon liggéey sëñ Tuubaa du wàcc kenn te ñëpp la ñoom ñii nag di sëriñ Cheikh sëñ Mahamoud ak sëñ Basiru Abdou Xurus ak mboole ñu ko seqal foofee rek la ñu xool ñu itam lépp lu ñu wootee sëñ Tuubaa danañ leen ci xool ndax buñ buñ wuysee rek suñu xel gën a dal ne Sëriñ Tuubaa nangu na ko ndax xam nañ seen maam yu tëdd yi kat nañ ànd woon ak sëriñ bi desaluñ ci woon dara amuñ guddi amuñ bëccëg Cheikh Massamba xam ngeen ne ci biir kër sëriñ bi la ne woon daanaka sax léeg-léeg bu sëriñ bi defar sàkket xaaju guddi moo koy jite bu bu ñuy def njàng mi bu sëriñ bi ne inna allaha maana ñu tàmbali ak bunt ak yu bari ñoom noonu la ñu àndiwoon bi kenn desut kon euh, sëñ Ousmane ñi ngi leen di sant bàyyiwuma kenn nag bu ma la tuddee ci sa positif ak sa taxawaay nii ñu la ko seeral léegi rek ñu ngi ko ñu ngi seqal ñëpp xam na ne positif bu kese ngay doxee sa digg ak sëñ te loolu dimbale nañu ci liggéey bi ndax liggéey bi kat liñ ci mën mënta ñàkk mooy positif waaye li ci des lépp moom doon lu jafe. kon ñu ngi lay sant di sant mboolem euh, commission yëpp bayuñ kenn ci seen pëstef ak seen yitte ak seen taxawaay kenn ku ci ne ba ñu àndee liggéey ba léegi ni yaa ngi ci wane sa pëstef ak sa taxawaay ak lépp loo xam ne mooy tax liggéey bi gën a jot kon ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñ borom mm, dëgëral leen kattanal leen ba yoon wi ngeen yoon wi ñu soom soobu ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñ borom may ñu kàttan ak ñu àggale ko ba ci jataay bii nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma moom mii moo jiite commission bi doon taxawal yi àndoon ko professeur Lamine Gueye ñoom ak waa Muqaddamatul Xidma ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di sant di sant sëñ Abdoul Ahad yooyu itam sa taxawaay ak sa yitteeg sa positif ak ñu ngi ko seqal ñëpp ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ kenn kenn kenn ku ci ne xam nga ne Sëriñ Tuubaa ngi liggéeyal kon ñu ngi sant commission yëpp ñi teew ak ñi teewut ak ñi seeni ndaw teew bàyyiwuñ kenn liggéey bi moom jërta sant kenn ndax ku ci ne Sëriñ ngi jëfal payoog yi nga ci yaakaar waaye suñ cant yi moom amul amul amul benn jëriñ la suñ bi waxoon ne ngërëmul nit ñi jërta sonn ndax amul njëriñ te kenn mënu ko am te ko ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon fexe leen ba borom bindee fi gërëm leen bu leen gërëmee nit ñi dana leen gërëm te duñ ko sañ a bañ kon loolu rek mooy la am solo kon ñi ngi sant mboolem dayiri yëpp yu jàppoon ci màggal gi bàyyiwuñ kenn ndax boo ne taalibe suñu Tuubaa yi ñëpp tàbbi nañ ci biir waaye daayira Muqaddamatul Xidma ñi ngi leen sant leen gërëm ci mission bi leen santoon ci màggal gi lépp matal nañ ko seen taxawaay seen yitteeg seen positif di sant waa daayira Hizbut Tarqiyyah ñoom itam ñu ngi leen di sant ci seen ak seen taxawaay bu rafet ci màggal yi ak ni ñu àndeeg bi waxtu di sant daaira Rawdu Rayaahiin ndax ñoom ñoo ànd ak ci njiital sëriñ Ahmadou Bari ibnu Cheikh Mamadou Fadil ñoom itam seen taxawaay ak seen yitte ci wane njàngale mi sëñ Tuubaa dara desu ci te loolu bokk na ci li gën soxla ci yoon wi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm. di sant itam waa daayira tubaa ci kanam Nuuru Daarayni ci njiitale sëriñ Ayub Mbàkke nu Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ak ñim ko ànd ñëpp sëriñ Abdul Ahatum sëriñ Ayub ak Abdul Fatah Gueye mi nga xam ne mooy seen jëwriñ nekkal leen ci ñoom itam seen taxawaay ci dëkk bi ak seen pastéef ak li ñu liggéeyee sëriñ Touba ci biir dëkk bi xam naa ko ma ñu jégal ma commune bi sëriñ Abdoul Ahad Ka moom itam ñu ngi koy sant ci turu sëriñ bi suñu Ousmane wax na ko léegi ndax màggal gi xam nañ coono ak yitte yim ci def ni ko suñu usmaan waxe xëy na boo ko dee xool ci nattuwaay bànqaas la ci état waaye commune bi moom àllale sëriñ Tuubaa àllale sëriñ bi moo tax daanaka sax duñ leen di sant leen gërëm ndax day mel ne moo sant daayira rek ñoo am benn atte ndax alali suñ bi ñafe ne suñ bi leen fa suñ biir li ñuy def ndigalu suñ biir li ñuy diglu kon ñi ngi sant ñëpp di ñépp ñëpp bala maa jeexal rek ma jot li yónnente Cheikh Mouhamadou Mountakha yi nga xam ne wax na ko ba ci jiitu mooy nee na mi ngi fàttali taalibe Serigne Touba yëpp la nga xam ne waxoon na ko ci kàddu nee na ko ñëpp bàyyi xel mooy ñi dëkk ci dëkk bi ak ñii ñëw ci dëkk bi nee na ñi dëkk ci dëkk bi nee na ñoo am tawféex dëkk ak Sëriñ Tuubaa nee na ñoom nag nañ xam ne li ñuy wut lépp ci sëñ biir lañ ko man a amee nee na ñi ñi ñëw ci dëkk bi itam di fekk si dëkk bi te àdduna yékkati leen nee na nañ xam ne lu ñu wut ci dëkk bi dañ ko wute ci Sëriñ Tuubaa ndax nee na bu ñu ko wut bu ñu ko wutee ci nit ñi duñ ko am. wala feneen la leen di yóbbu foo xam ne euh, danay danay yàq seen mission ñoom yàq mission nit ñi li leen booleeg Sëriñ Tuubaa kon nee na ñëpp nañu bàyyi xel ñaar yooyu ñi ñëw ci dëkk bi lu ko ñor la nag noonu la ko bamtu ñi ñëw ci dëkk bi nee na buñ jéem a sàkkoo wut ci dëkk bi dara lu wuti ko Sëriñ Tuubaa ñi nekk ñi ñe nee na ñi nekk ci dëkk bi itam buñ nongu buñ nangu kenn di leen wute wute wute wute dëkk bi ñoom itam nañ doyloo Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen fi tax ñaar bu ko ñépp defee day noppalu kon loola ñu dellusi ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon waa daayira Hizbut Tarqiyyah ne leen lépp leen lépp luñ leen jaayee Sëriñ Tuubaa na ngeen ko nangoo jënd waaye yéen bu leen nangoo jaayee Sëriñ Tuubaa dara loolu di ab bind boo xam ne ñëpp ko war a teg seen kanam waa daayira wilaaye ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ba liggéey bi tàmbalee ba nëgëni ci commission Serigne Cheikh Mariam lañ aju waaye seen yitteeg seen taxawaay ànd ko daayira mu xaduma xidma mës a soppi ko kon bàyyiwuma kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, ba ci daayira ñu nga xam ne ñoo tudd ñoom la Serigne Sall tuddee woon Touba li abdin muridin sadiqin lahu ca Serigne Abou Serigne Cheikh say jiite ko nga xam ne li tàmbalee première safar bi ba màggal gi des ñett fan ñoo ne ci kër Sëriñ Tuubaa ga ñoom it kenn gënu leen sonn ñëpp ñëpp rek waaye ku ci ne rek Sëriñ Tuubaa ngay jëfal te jëfal moom sëñ bi daa wax na addiyewu duma ci gërëm kenn na am dencal ma rek la waaye li ñuy jëfal Sëriñ Tuubaa nag mooy noonu la def ku ci ne sa bopp nga defal ba ca mujj nag mooy li sëriñ boo xam ne naa ko fàttali mooy bayit boobu rek wala xad amuru ala la imu yas la imu yasubbu nii wa aifu summa aqulu laa yaani nii wax moom la la cee noppal mooy seet fa nga jëm rek ba bañ koo tal waaye ku dugg ci tontonte ay wax loolu ak yàq la jur ak wuññeente ay ay te loolu amul njëriñ ndax kii nga xam ne moom lañuy màggal guddeem te nekk ci weeram muy rasulullahi sallallahu alayhi wa alxaan tëggu ko ci lenn lu mooy wa innaka la ala xuluqin azim kon nag sëriñ bi nee na makaarim axlaax jooju nga xam ne rasulullahi ci la ko suñ borom tagge te sëriñ Tuubaa def ci xasida yu bëree bëri yoo xam ne wa innaka la ala xuluqin azim la ko tënke ñaan nañ ci gën a tënku te xam ne makaarim axlaax rek am solo bu la nit ki lebeleef safaan nee na dee ko delloo lu baax dellu ca la way juróom bu tedd ba daa jàngale Serigne Saliou daa wax ne waxtu ànd ak nit na nga ànd ak moom ci sa jikko waaye bul ànd moom ci jikko booy ànd nit tam ànd bi na nga ko sa bopp bu leen ko jox jëlaate bu ko bàyyi ñaar bu leen ko jox jëlaate mooy noo ma def ma def la ma def la boo ko ko bàyyee fu ko neex mu yemale ko dadaa wax ne nit ku ne itam na ngay seet ci moom la la neex ci moom te bañ a seet la naqari ci moom ndax nit koo gis ku ne am na lu la neex ci moom am lu la naqari ci moom kon nag nit ñi nañ xewal léegi bu nit defee junni yu baax bu defee benn boo xam ne jubuwu leen rek ñu fàtte lépp loolu du ma axlaaq makaarim axlaaq mooy bu fekkente nit bu fekkee wóor na la daa jom te nattable na daa juum itam nga fexe ba jéggal ko ak xam seet lu baax la nga xam ci moom nga seet wax ko loolu mooy li am solo waaye lii xew ci jamono léegi euh, occidental yi ñoo ko indi bu nga gisee sëriñ bi daa bañ daa bañ lépp ci la tab bi tanasur moo indi yépp ay wax sa xalaat ak kenn ku ci ne jàpp ne da la jub ci sam xel da nga war a doxe te loolu du diine mbirum Sëriñ Tuubaa du noonu ak taalibe ak taalibe sëñ Saliou daa wax ne ak taalibe am xel du ko mat ndax allazina yu'minuna bil ghaybi yaa tënk sa bopp nit ki gëm lu mu gisul tegu ci bëtam bu fekkente ne day bëgg dem ka àjjana kenn da ci teguñ bëtam àjjana bu fekkee da ngay dem ci xel rek àjjana kenn mus ci teg sa bët sawara kenn mus ci teg sa bët kenn mus ci teg dekk kenn mus ci teg sa bët da koo gëm kon diine nañ xam ne diine du xelum kese dina dafa am ay fondement fondement yu wóor yoo xam ne la ko téye bul xool la jub ci sam xel nga jàpp ne dangaa war a atte sa diine ci xel ndax junni nit bu ñu newoon fii kenn ku ci ne ak sa xalaatu bopp mooy xor xoriyatu taabir bi ñuy wax loolu nag boo ci xasee ba dugg loolu du sotti kon loolu xew na ci jamono waaye buñ ci roy tubaab yi tontonte yeeg wax yeeg yëpp yoon mu kenn xamulewul kenn xamewu leen woon loolu kenn xamewu leen woon wax yu bari yoon wi ci jëf lañ leen daan nawe te fuñ àgg itam jëf moo ñu fa àggale waaye yaakaar naa booy xool njëbooru Sëñ Tuubaa gi sax ñi ci suñ boon defaloon fasaaxa ñu néew néew la kon yoon wi ay wax tëyewu ko te saa suñ gënee ŋàññi yoon wi gën a ŋàññi Sëriñ Tuubaa seen pëstéef di gën a yokk nit ñi seen pëstéef Sëriñ Tuubaa ak seen doogu ci moom màggal gi wees wane na ko kenn mënu leen tàyyal la ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo tax jëru sax sonn jërul xalaat ndax lu dox lu ëpp téeméeri at fu ne jaar na fa fu ne jaar lañ ko fa pexe yu ne def nañ ko waaye saa suñ xëyee mbirum suñ Tuubaa di ngeen yokk loolu ajuwu ci nit ñun ñi fi ne ñëpp di taalibe suñ Tuubaa buñ fi bàyyikondoo woon tey tey ñëpp de jógendoo fi dem àjjana it ndax loolu suñ Tuubaa ko moo ñu ko dig moo ko digga te ci làmm ñu doomam laa ko digg buñ ko defoon ne dara du sikki ci yoon bi ña Sëñ Tuubaa di indi ñoo ñoo ñooy dàq fuuf ñi ko ñi ko indi ñi fi newoon loolu kon mbirum sëñ bi la duñ ñun waaye sëñ bi la kon loolu na ko na ko ñëpp gën a bàyyi xel gën a góorgóorlu ci yitte yi ak positif yi te xam ne maam Cheikh Ibra Fall ci mujjug sëriñ bi fekk ne sëriñ bi ci njaarim bi mu agsee fekk sëñ bi sëriñ bi di wax ak nit bi mu agsee di wax sëñ bi ne cal di wax a kooka ba sëñ bi jeexal na ko Ibra Fall loo doon wax noonu mu ne ko Mbàkke yi damaa amul jaaxle li ma doon laaj mooy ndax di seeti nañ fi dara ndax di seeti nañ fi dara ndax xéewal yi dafa bari bopp mu ne ko ndax di nañ fi dara sëñ bi ne ko Ibra Fall la ma la la ma waxante woon yow ci Mbàkke Kajoor sama mbiru pay gépp ëllëg la jëm lu ngeen seen ci àdduna rek li li ndab luñ duy ba mu fees la liy tuuroo ci ndab li moom ngeen di seen ci àdduna kon loolu mooy mbirum suñ Tuubaa euh, Cheikh Issa Dieng mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko man kat Mbàkke damaa jaaxle ndax lislaam li mu wax ci ñaq ñaqu alali gor ñaq alali góor li ci lislaam wax diis na diisaay goo xam daal um na sama bopp di jaaxal na ma kon ñii nga ñu boolee ñu topp ñu ñu topp ñu ngir sa jëmm jaaxal na ma ba teel ma nelaw ma doon laaj nag ba xam ñooña nu ñu defee ak ñoom te am na ñoo xam ne kat àgg nañ ci li ñuy wax ne azhabtum tayyibatikum fi hayatikum fi hayatikum dunya loolu itam jaaxal na ma man naa ñëw laaj si ko sëñ bi ne ko Issa de lii nga laaj war na la yaa yaa yaa képp yaa képp ku mel ne sëriñ bi ne ko Issa sama mbir mi sama borom li ma ci xamoon mooy haza atauna fam nun awam sik bi xëy Issa suñ borom da ko defaroon tawfeex ci sëriñ Tuubaa fu ko sëñ mës a gis rek day bëgg li daloon sëñ Gaawaan moo ko daloon sëñ bi marsan lu nee na daana ko laaj sëñ bi loolu ci yi may bëgg nett ci sëriñ son bi laa ko dégg daa ma sëñoo bis Mbàkke ne ko ne ko Mbàkke li ma jaaxal de mooy ñi nga jo ñi nga may ñëpp mooy ceex gi ñi ñi nga ñi nga defar ñëpp tofal leen booloo buñ la waroon nag buñ la waroon nag sëñ bi ne teg ba caag mën na ko isaa nit bu wàcce woon fii dara ndax da da lu mu xiif xiif dana dana dana xiif ba xelam demaat ci wàccu ma mënu ko déedéet mën na ko li ma jox noonu la demee ci man kon loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa gi itam euh, Cheikh Issa Dieng at ko sëriñ bi njëkk wootee ndax ni ma ko ni ñu koy waxee ci histoire rek sëriñ bi at mi ngi ko njëkkee def da ko defal boppam moo ko defal boppam woote ko moo ko njëkk defal boppam mooy gàtt ba ko sëñ bu soo joxoon tam doonoon aw bëy te siñ bi soppali ko am am xaaf dégg ngeen histoire jëw del siwaat waaye boobu siñ bootewu ko at ma ca topp nag diggam siñ bi fekk na mu wax ko loolu ñu bari dégg nañu ko ci soxna Amin Tamar way juru sëñ Moussa sàmba ak sëñ Mamour moom fekkee woon na jotaay ba sax bi biñ sëlmale tisbaar si ay saa jenn dafa ñëw indi bool yu bëree bëri xam nga ñoom daa dàkki siñ biir nga xam ne teraanga yi njëkk dem daal foog naa ne bu ma jóoru Cheikh Issa ko fandi yi njëkk dem ci màggal gi muy bool yu bëree bëri sëriñ bi ne ko Issa ana loo jublu woon ci lii mu ne ko xanaa jëm laa teralal saggan ñi ak màggal sa bis bi sëñ bi ne ko sëñ bi ne ko Issa xanaa da ngay njëkkanteeg man ci ci ci ci sama bis bi mu ne ko déedéet Mbàkke njëkkantewuma yow sa bis bi dama lay jéem a teral teral sa bis bi sëñ bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko Issa de sama bis bii de danaa dox ab diir bu gàtt ci sama dëkk ba ci Touba mm-hmm. ci sama dëkk ba ci Touba mbooloom bi ak mbindee fi dana fa bari bari goo xam ne kurut man mi ko woote ak yàlla mi ko binde mënta xam limum nit ñenum toll kon loolu mooy bi kon Sëñ Tuubaa sëñ bi daal daa wax rek gis bi daa neex dara ump ko kon nag nañ sant yàlla ci tawféex ji mu ñu defal ba lépp ñu àgg ñi ci jëf ñépp bàyyiwuñ kenn ba ci ñi nga xam ne ñoo média bi nga xam ne ñoo jël màggal gi te def ci liggéey bu rafet suñu bilaat yaakaar daal jot na woon jot woon na seen cant moo tax dellusiwaatuma ci woon waaye sant nañ daal cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem lépp nag bëgg rek ak ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa liggéey bi ñu koy liggéeyal yàlla nañ Sëriñ Tuubaa dimbale ba bànneex bañ cee tàbbi bakkan bañ cee tàbbi ñu bañ cee gis suñu bopp ndax jërte gis sa bopp ndax liggéey boo xam ne li may wax màggal gi dox na bokk ko sëriñ bi wootee léegi day mel léegi moo jege téeméeri at boobu ba léegi muy dox te wóor nañu ne danañ faatu lu yàgg muy dox kon màggal gi kenn duñu ci dara lépp suñu Tuubaa dañ xam ne ku ñu wax ne doon nga ci dara rek dañ lay dañ dañoo bëggul la neex ay màggal kenn kenn duñu ci dara bu kenn organisé wutoon du tee mu nosu la Sëñ Saliou daa wax naan màggal gi daa nekk organisé ko jëfewut ndax boo xool ca yooyu jamono boo kii kii di fi diine yi ëpp ñoon ay ñeent fukk juróom fukk mun a délégation yëpp mooy këri diine yi ak waa nguur gi ñi ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen sëriñ lañ taalibe yu bu siyaare si sëriñam nag lu mu fa fekk baax na kon ñoom gis nga ni ñu xamee àdduna lu ñu la jàngal rek boo ci doxee gis ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan njàgg ko def te buñ ci àggatee jàmm itam luñ ci daa def ñu gën ko fonk ndax day ndigalu Sëriñ ndigalu Sëriñ loo xam ne moo ko defal boppam daa ko jëf te it teraanga yi mu ci digle woon itam dara jiitu ko ci ndax li ma wax rek léeg-léeg dañuy jéem a layal Sëriñ Tuubaa dañuy jéem a layal Sëriñ Tuubaa ba ba ba njuumte di ñu ci bëgg dal ndax léegi booy xool ñii communiqué ñëpp da ngay dégg ñuy wax ne nañ dundal màggal gi ci jàng alxuraan ak xasida loolu dëgg la baax na lool ndax waa kër Sëriñ Tuubaa ko santaane waa kër Sëriñ Tuubaa ñoo ko santaane tàmbalee ci Cheikh Mamadou Fall bi mu ko wootee ak Cheikh Abdoul ak Cheikh Saliou ak Cheikh Abdoul ba ci Serigne Saliou ba ci sët yi leen wóotu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cheikh Sidi Moussa bay Cheikh mu Mountakha waaye nañ xam ne kat la jiitu ci ndigalu Sëriñ Tuubaa mooy bernde yi loolu nag kon day mel ne nit ñi lépp complexe moo leen ci bëgg dugal mooy bëgg a jéem a wax ak ñi nga xam ne gëmuñ Sëriñ Tuubaa tax ngay jéema a layal Sëriñ te suñ borom moom mbiram wees noonu lu ci ne boo demee ci tabaski tabaski am xar la ñuy rey tabaski nit jaamuwu ci yàlla lu gë lu ko gënal rendi rendi xar mi kon suñ borom moom lu mu digle rek moo xam xekk ma tax ba tax mu def ko na xam ne suñ Tuubaa nag ba mu koy digle lam ci njëkk defal boppam santaane ko mooy bernde yi daa waxoon ne na ma ci ñëpp santal yàlla daal koy leeral nag santal yàlla kon lu ci waay man tàmbalee ci ganaar ba ci gëlëm tolal dégg ngeen ko ci lam ñu doom suñ Tuubaa loolaa wér laa jógee Sëriñ Tuubaa li ci des lépp nag lu baax la luñ ci dolli loo xam ne lu baax la ñëpp ko war a fonk waaye nag buñ jéem a layal Sëriñ ci njuumte di ñu bëgg a def te loolu gis naa ne njuum ci ci bëgg am ndax ñëpp ñu koy wax xëy na lu baax lañ jublu waaye bëgg ñi nga xam ne gëmul sëñ bi ñu bëgg leen wan ne Sëriñ Tuubaa kat bi mu koy woote alxuraan la ko woote xasida loolu lu baax la waaye nag la ko Sëriñ Tuubaa digle woon buñ ci comp complet si dugal ndax boo demee tey Màkka makkatul mukarram kaaba ga xajarul aswad diggante safa ak marwa loolu boo ko xoolan cim xel mënoo ko leer loolu diine ci bopp moo bindoo noonu diine du loo xam ne lépp danga koy teg cim xel diine nag mabniun ala naqli la ala munasabati naqli kon nañ xam ne li am solo rek mooy na ko Sëñ Tuubaa digle woon nañ fexe bañ cee appal bañ cee yësal fexe ba na ko Sëñ Tuubaa digle woon soppiku jamono bu ñu dugal ci jéema dugg ci ay puukare wala loo xam ne dana ko naxal donte mbirum suñu tubaab dara mënu ko naxal ndax suñ borom ko tàggaleeg loolu képp ko bëgg a naxal it ndax gëdd la weesu yow waaye mbirum suñ moom day dox di wéy rek <laughs>